jërëjëf euh, mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ndokkeen tey man Bour Gueweul ma ñëw fi nga xamante ne que moom mooy parcelle unité 5 la mañu ñu fi ni di fee bu doy boo xamante ni que ki mu xew ci ginnaawam dafay ko xamante ne que représenté le Sénégal dans les plus grandes scènes du monde nekkoon un jeune chanteur ñu gën ko xamee ci la maestro lay mbay euh, yàlla jël ko bu yàggul tey mu bàyyi fi famille. amoon yéen it fu mu dugal ndeyam dugal fa ay rakkam xanaa morse bi mu way yaayam rek dëgg-dëgg war na mën a tax ñu xam cofeel gi mu am ci digganteem ak ndeyam ak yéen bi mu ci amoon kon bu fekkee ni bàyyi na fi lu mel noonu mu nekkoon rêve ci moom mbay Mbaye patrimoine national la réew waroon ko jàppale gannaawam taxawu ko gannaawam doolee ko ginnaawam aar ak njabootam tënu leen ginnaawam bu fekkee ni que la nation sénégalaise dem nañ ba defuñu loolee bala mu amoon na kus néew defoon ko ci ngir rawale ndeyam ñu ne tey état du Sénégal toj na ko noonu lañ ko mën a waxee état du Sénégal toj na ko est-ce que Ablaye Mbaye loolu la mérité mbokk yi loolu laay laaj tey nag ñëw fii fas yéene waxtaan ak waajuram mu wax ñu mbir mi naka la demee. waaw maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant ba ma santee yàlla julli si Mouhamed maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama góor bu baax ga. ak sama doom ju góor ga dem amoon njëriñ si man yor ma yor baayam yor ay famem ma ko di ko ñaanal ak papam ba mu tëdd yàlla na suuf ayof seen kaw léegi weer ak ñaar fan la gaañoo la rawante ak papaam le 20 juillet le 20 novembre la papam gaañu mu gaañu la 9 janvier mu wàccoon fi nag terrain sa Kër Massar kër gi këru famille la ñu jaay ko bañ ko jaayee waa ji ma ñu jëlee 4 mois léegi ñu milaas ñu jël xale li ma am ak li ma am mais naa dem yeggali màkkaan ga moom fa bàyyi loon bu dëkk fa ak xale ya ba fa dëkkee ba mu fa ko demee la ma am kës néew ma def ko fa moom mullu def fondement tabax ba passé ajjuma passé laa woon a seene ajne tey ji laa woon a kuule bërki dem ba àllarba rek ma toog mosoñ bu woote ne wa des ko ñëw na fi ba toj ko né dañ ñu demassé woon ku ñu demassé do yo sa kayitu kër dañuy jël kayitu kër ga yobul jox la xaas man nak xawmu musuma dem sa terrain ba xawmu ko it xalé ñoo fa dem ñoo ko xam ba ablay may deet ña waxon ñep gisuma len ñi ma gis batay bayyi wuñ ma premièrement pa Mayel job ma diko ko ñaanal fan gudd ak wér lu mu man ren yalla ne mën déwén di tollu maam Kumba job mu Mamadou job ancien maire bu yoof ma bokk dëkk ak moom yoof tànkay Pape Mayel jaar fa la jaar bàyyiwuma ma bëccëg ba ki dem ba sama réew taay maa na lu ko may Yoro Ndiaye Pape Cheikh musicien ah doyen Aly Dieng Maxa Sidibé ginnaaw yaa ngi tamit ñoom la ma bàyyi loon te bàyyiwuñ ma ginnaaw bàyyiwuñ ma xiif bàyyiwu ma ñamar ma dee ñaanal lu ñu mën ren yaa ñu ko mën déwén toj nañu ko nag pour bëgg maa loo waaye Rossane Dakabeer laa dëkk de diggante Yoff ak Tëngéej kenn mënu fay génne dékk naa nag yàlla ak yoon taba samay loxo di ñaan ndimbal ci lii ñu ma def ndax metti na amet ma jëm tey ñàkk doom ji mel ni Ablaye ñàkk doom ju mu tenir ma nag kër bu ma génne àddina laa xam ne naqar am na mosumaa xam naqar mosumaa xam souffrir saa yow ne fëgg rek maa ngi lu mu ma yor naa ma yaay bul ñaan kenn bul xalaat dara lu ma am yaa yaa tax ma di ko def kër bu mu altine ñu mu génnee àddina di tey laa am problème laa am ndaxar moom mosuma ko am waaye nag xëy na li yàlla li la yàlla mais ne la yaay bul jooy ñàkkoo sa doom ñun tey fa la Ablaye féete woon dinañu ko féete. mooy dëgg la maa ne mooy Pape Mayel Diop maam Kumba Diop ak euh, doyen euh, Yoro Ndiaye Pape Cheikh ak Ali euh, Maxa Sidibé mu nekkoon fanweeri at yàlla ak benn. guddee ba ñu ngi topp si man ñi nga xam ne ma neex ñi xam ne ma naqari bëgguñu ma xiif bëgguma mar. tey ngeen ne ñu jox ñeenti weer ma jël la ma amoon ak sama doom yi am di profité pour toxu fa ndax bëgguma am gàcce ma ne dama fay toxu mbëkk de ma àll ba rek ma soog bëgguma ma ne ma daayal nañ ko te xamal waa ñu daayal ma ko ndax bu ñu daan sa alal day fekk doo ko moom baa yoroo kayit daa yor naa kayit yor naa itam ah, ah, kii de wante buñ ma jaayoon ak lépp ab Ablaye papa ma ko jaayoon kër gi ndax moom moo woon terrain ba mu jaay ko ko moom ma may ma ko. yàlla wax sa sama wax ma sama wax bu mu ga ah jaaxle rek tey wut ndimbal xaw ma nag locataire ndax mu ngi doon tey mosuma loyee te xam naa ne si laa jëm ndax daan nañ li ma yaakaaroon ndimbal nag laay wut balaa délai ba jot fu ma dugg ak sama njaboot. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd El Hadj bay Mbaye di doomu yaayu Ablaye Mbaye Gantieri Fall di magam di seen taaw si seen sama kër papa bu góor. affaire bi daal comme ni maire bi expliqué rek la demee yàlla dafa def Ablaye mbay bàyyi woon fi terrain depuis 2008 sama papa moo ko jaayoon nag mu téye ko ne woon sa pour tabax ko pour dugal sama yaay moo doon rêve am yàlla mi dara tawul ñëw ak weddeem yàlla jëlee ko fi yàlla def nag ñu miraas sama kër papa récemment may ñu délai bu gàtt muy 4 mois ci 4 mois yooyu ñu jël suñu héritage ak li sama yaay dajale woon ñu ne nañ profité tabax parce que sama yaay tamit bëgguñu mu parce que xamul loolu mi dara ngi dem dem Descos ñu jox ñu autorisation nañ dem len mais autorisation morale la jox ñu ñu kayit quoi mm-hmm. ñu dem tamit mairie am affaire yu démarche Descos ne comme len une projet bi procédure bi fay dem déjà ñun ki ñu nañu dem len fofu non démolir kër je je pense que ni nit bo bay au moins war nga sax joxé convocation wala sommation genre joxuñu sommation joxuñu sommation dañ ñëw démolir ba paré doog ñu jox sommation nañ ñëw leen mais bobu tamit on était désespéré quoi franchement parce que tamit jour sama yaay mo ñu yónni woon comme limu wax expliqué léegi ñu xey nek ci yitte yoyu chaque jour danaan dem di présenter à l'heure mais tamit yalla mom bu ndaré reen ak ndogalam rek non lay démé ñu am fa tamit wax dëgg yalla gor gu bax muy délégué quartier bi depuis lors nak mo ngi ciy taxaw depuis loolu moo ci taxaw tey man tamit dama yaakaar ne nit bu fekkee dañ la dédommagé au moins xana état bi dañ la laaj sa titre foncier wala sa bail wala sa dara mm-hmm. mais ñun ñoo suñu kayit yëpp mu nek en règle déjà bi démé Descos dañ yóbbu kayit yëpp ñu ne yeen seen kayit légal na mm-hmm. kon bu ñu demee ñu toog 10 jours lendemain ñu ñew ne démolir nañ affaire bi mais après da fay bizarre si ñun quoi. mais ñun wax nañ leen ban motif mo tax ñu ñu démolir ko. jusqu'à présent amuñu benn motif bu ñu jox amuñu benn motif bu ñu jox. waaw amuñu benn moto bu ñuy jox moo tax mu xaw a bizarre suñu nag. waaw euh, léegi bon euh, ci yan ngeen bëgg a jaar soit que da ngeen bëgg a dem ci yoon wala da ngeen di lancer benn appel uniquement que euh, les bonnes volontés taxaw ci. waaw action bonne volonté parce que actuellement maire bi elle est désespérée. maire bi jaaxle trop ñu nag benn sant ñoo ngi sunu ngëm quoi parce que ay xale lañu tey wax dëgg yàlla war nañ mën a liggéey loo xam ne war nañ mën a jëriñ suñu yaay. té ñoo ngi ci tànk yooyu bu baax a baax te it nag duñ ko mu yam fi danañ ci top ba lu ñu yoon suñu borom may ñu jël parce que ñoo ngi suñu këyit ñoo ngi suñu lépp te it liñ fa def tamit lew nañu doom quoi franchement. waaw buur maa ngi leen bu bah a baax képp ku ñuy bàyyi xel maa ngi lay siyaare vraiment Ablaye mérito wul lii euh, parce que nag def na fi lu ne té li wax rek ñun dañoo bokk ci ñi yàlla ñi yàlla manqué parce que yàlla su la xañee bët wala mu xañ la leneen rek manqueel na la waaye ñu gëm ko lool nag ak di liggéey ku ñu xam-xam ne ñun dañuy dóor waar mu dóor waar nag ba yàlla fekk ko fekk dogalam ci biir waaru kaayam sax la ko nag sunu boroom fekk muy studio bam ko fi jëlee wéet ñu bari taxawoon na yaay doo jooy ñi waxoon ñëpp ñi ngi fii tey yàlla nañ fi gën a yàgg ak ñun waaye xam nga fii moom day Sénégal rek tey koo seeti woon tey mu làqatu la dëgg rek yàlla moo ko moom ku la jox numéro am tey ne la woo ma bu subaa boo ko wooyee sax du la wuyu boo ko messager da lay rappeler après maa ngi lay woo wala genre yooyu nga gëm sa bopp nag di dóor waar paa bi it jugee woon fi bàyyi fi njaboot macha allah ñu miraas it jël suñu kër jaay dem ca terrain ba fële di ko tabax terrain baa ngi kër Massar def fa lépp parce que it ñun doole yemul tamit bu dee dëgg la yàlla bëgg man damay musique am naa ay frère mais yàlla xam nan lu yàlla xam doy na ñu jël li ñu am yëpp boole nag ne dañuy dem foofu toog fa xaar yàlla tak suñuy ndigg nag jàppale meer bi ñun comme comme ni ko sama frère bi waxee rek man dañ ko woo téléphone moom dane nga ngani rek man ma jug génn fii ci néeg bi ne ko lan la mu expliqué waa Descos ñoo ko toj man damaa man moom li mu wax sax man damaa foog ne nit sooy toj xanaa di nga ko woo ne lu tax nga def lii wala lu tax nga def lee ba par doog a toj waaye ñëw rek salaamaaleykum maa ngi salaam fekkoo fa kenn lu dul maçon yi nga toj kon ñun ban ban ñun fan lañ nekk léegi ban dëkk lañ nekk ñun loolu la ñuy laaj Mm. Mm. a am. Mm-hmm. Ah, waa me noonu la xam nga nit moom am na nooy mel rek ca kala yaree nga koy jëlee ñun taamaluñ ay di dox di taxawaa wala ñuy seeti man moom buur wax dëgg yàlla waykat laa de waaye damaa xam sama bopp parce que tamit yaa ma gën a xam li ci li ci milieu bi waaw wax wax rek a fi nekk waaye comme nag yow nit ñi dañuy wax te duñ jëf yow am nga sa loo jëfal sa bopp xanaa ñu mun koo bàyyi ak yow parce que vraiment maire bi mag la jël na âge musul luwe nag bu ko yàlla bindee ci jawam it dina ko def waaye musul luwe mu xalaat ni moom su jëlee li mu yor akus néew dem def ko foofu nu mu mënti mel ñun dañ ne ko nu mu mënti mel rek nañ dem toog fa xaar yàlla carrément hmm. wallahi su fi nekkoon du demee nii wallahi su fi nekkoon du demee nii su nekkoon xam naa ne buñ ko xëccoowee ak moom sax mu bàyyi ko jëm a jéem a xëccu li leneen waaye yàlla dafa dogal ni man mi féete comme côté bi ma côté bi mu féete woon li mu mënoon mënu ko su yàlla rek bëggee dëgg li mu amoon it awma ko même bu amul woon dërëmit amoon na ay peut-être moom am na nit ñoo xam ne bu ñoom dinañ def man nag côté boobu féetewu ma fa te mënu ma kon nag euh, ñun dañuy ñaan rek ñu wax ñu ñun ban dëkk lañ nekk ñi ciy topp na comme li sama frère bi wax dañ ciy topp ba suñ ci jotaatee jël suñ ci jotaatul tamit ñu dégg suñ loxo yàlla rek yàlla moom ku mu sàkk sargal la yàlla du sàkk jaam di ko toroxal gis ngeen mbokk yi euh, mbir maa ngi noonu euh, dégg ngeen soxna si li mu wax nee na keroog bi mu ñàkkee Ablaye la xam ne naqar gana si na ko waaye dégg ngeen xale yi lim wax kon dañuy ñaan les autorités de ce la là rendons César à ce qui appartient à César mooy ko Ablaye yàgg na tooyal xol yi ab Ablaye yàgg na wane le bon exemple ci une personne vivant avec un handicap mooy jàpp na ki handicap ci xel la waaye du waaye du ci ay cër rampe na jaar fi mu war a jaar liggéey ci carrière am musta fen musta sàcc musta lekk alali jàmbur te kenn mus ko dégg ci lu xewu kon tey jot na les autorités de ce pays là jug jàppale famille bi nga xam ne tey li mu daan daj ak li mu bëggoon Moi, Sam leen Yirlen, nous yiir ñu interpeller monsieur le président de la république le gardien de la constitution le premier sénégalais d'abord wax ni le président de la république qui est né après les indépendances donc xam nga diggante ndaw ak waajur di interpeller aussi la première dame Adjaratou Marème Faye Sall umul fuqara ñu ñëw taxawu famille Abdoulaye Mbaye ndax avons ñu dëkk tey weer ak tuuti moo leen fi dese buñ leen fi génnee amuñu fu ñu jëm kon mbokk yi loolu la ñu indiloon fii ci unité 5 Cheikh Abdoulaye Mbaye di jox dégg yeneen daje sur Dakaractu ak seen mbokk Bour Gueweul